جزاك يا قل إبراهيم مولاك غير الجزاء أولى داريك أولاك جزاك يا قل إبراهيم مولاك غير الجزاء أولى dëkk bi moom mooy Madinatu Sarr di dëkk boo xam ne Serigne Mbacke Sarr mu Serigne Ibrahima Sarr Jasaaka moom moo ko sanc dëkk bi mu ngi nekke ci wetu Mbul seen diggante ñoom ñaari dëkk yi daanaka ñaari kilomètre la Serigne Cheikh Sarr mi nga xam ne doomi Serigne Mbacke saar la ànd ak taalibe yi bàyyi ko fu ne mbokk yeeg wëllëre yi ñoom ñëpp ñu ñëw ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Madinatu Sarr ngir togg ay bernde yu yaatu yoo xam ne lañ fas yéene dem jébbal yi Serigne Mountakha Mbacke moom ba Bassirou di xalif général des Mourides di bernde yu yaatu yoo xam ne at mu jot Serigne bi bu nekkee ci dëkk bi nga xam ne moo di Mbul Kayel Serigne Cheikh dina ko fi fekk indil ko ay bernde yu lépp loo xam ne moo jëm ci waajal bernde yu mucc ayib rek def nañ ko ànd kook mboolem taalibe yi bamba gërëm na laay saar cheikh bamba fi xibra saar jaasaaka yaa qiilu ibrahima mawlaaka xayral jaasaa awlaak cheikh ibrahima saar Bamba gërëm na la saar arayka ibra saar jasaka yaqiyum ibrahima mawlaaka xayral jasa wa muna daarayka awlaaka Cheikh Ibrahima Saar Bamba gërëm na la saar daarayka naka sëñ Bamba yàlla la la way ñaareel ba mooy Mustafa gërëm na Cheikh Ibra Sarr baayu Serigne baayu sëñ Bamba yàlla la way ñaareel ba mooy Mustafa gërëm na Cheikh Ibra Sarr daay seere saar ja saaka yàlla la way wareel ba mooy Mustafa gërëm na Cheikh Ibra Saar li wax ja saaka yaqilu Ibrahima mawlaaka xayral jasa wa mana daarayka awlaaka ja saaka yaqilu Ibrahima maami sëñ Cheikh Sarr wamu naa daarayka num caa teg fahlam bi annaka indi suuri wa zakarin uka fi dunya wa uxraaka man ñaan ko awra génn sëñ Bamba ba saado nu ñëpp pasaw soxore basar nu ñëpp pas awra génn ko indi suuri dal suuri dal fadum ala sidqi والإخلاص مجتهدا في سر والجهر إذا ما ما زياغا والإخلاص مجتهدا في سر والجهر كتلما زياك فدم على الصدق والإخلاص مجتهدا في سر والجهر كتلما ما زياغا والإخلاص والإخلاص والإخلاص مساياك فاطمة على الصدق والإخلاص مطيب الله في سر والدار دلما مساياك والإخلاص والإخلاص والإخلاص, والإخلاص عساك فد على الصدق والإخلاص موجد في سر والدار قبل ما مزياك والإخلاص والإخلاص داري كيد الموت جاتك فادو على الزنخ والإخلاص موجد في سر والدار الماما زياك والإخلاص كيد في سر والجاري كيد الماما ما زياك فندم على سنك والإخلاص di leen gërëm fépp fu waay jógee sant nanu la gërëm la te di la ñaanal ndax yëf yi wóotu wuñ ko fenn képp ku ci ñëw sa pës rek moo la andi waaye yëgalu ko kenn wowut kenn itam ne ne leen lenn kenn ku ci ne boo yëgee ne sëriñ bi dafiy ñëw. bernde yi nag sëriñ Cheikh Sarr mi ngi ko ànd ak mboolem taalibe yi rawatina sëriñ El Hadji Sarr mi nga xam ne am la moom it togg ay bernde ñëw jébbal ko sëriñ Cheikh Sarr boole kook li nga xam ne moom la ñu waajal ci kër gi lépp. dem jébbal ko xalifa général des Mourides. ginnaaw bi ñu waajee ba dajale mboolem berde yëpp ci lañ jubali fi nga xam ne moom moo di mbul kayal kayital الموت مسعاك في سر ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbooloo mi yëkkati fa xasida tàmbali seenub ziyaar jubali Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou Masaya. متحدا جاهدا بسر وجهك ساتن مسياك Cheikh Sarr mi nga xam ne mooy kilifa gi am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou. bii nga xam ne bii moom nga yoral sëñ Touba yàlla na ko def nanga nga ko bëggee tam ànd ak wér mbooloo mi nga xam ne danoo àndal ñoom it te am te ñu am yéene liggéeyal sëñ Touba noo ngi ñaan nga ñaanal leen bal la suñ maam yi amoon muy sóori leen abadan ñoo am ko nañ ko bëggee ñaanal leen ñu am xéewal yu ñu mën a liggéeyal la sëriñ bi tayit defal leen ak jub defal leen ak taalibe ndax dafa am magum taalibe mu baax moo xam ne daa wax ne ñetti baat rek doy na ñaanu murit yal na nu yàlla musal ci lu dul ndigal yal na nu yàlla musal ci lu dul ngërëm yal na nu borom tubaab dëppaleeg tawféex lool lool loolu rek mbakke la ñuy ñaan waaw loolu rek mbakke la ñuy ñaan ginnaaw kàddu kàdduy sëriñ Cheikh saar yooyu sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides am na kàddu yu am solo moom it yoo xam ne yëkkati na ko santaat bu baax a baax sëriñ Cheikh Sarr mii ci jëf ju rafet ji nga xam ne at mu jot da koy gën a yeesal gën ko feddali waaye di ko yokk saa su ne saa sëñ bi ñëwee ci dëkk bi nga xam ne moom moo dimbul kayal ñaanal ko jëf ji gën a kawe waaye ñu yàgg ko ànd ñoom ñaar jërëjëf sëriñ bi dafa wax ne jërëjëf dégg na kàddu yi bu baax a baax. mu ne kàddu yi soññ na ko. mu ne. mu ne bégal na ko. bi. mu ne kon nag seen jotaay bii. mu ne mel na yoon yoon wépp daje nañ ci moom. <laughs> mu ne ndax yéen bokk lépp mu ne mbokk gi yàlla def na muy mbokk sëriñ bi mu ne yëpp yi dëkkandoo bi de yonent yi moo fonk lool mu ne yéen yéenay ak dëkkandoom mu ne kon na xam ne tey jii sa jotaay bi xolam sedd na ci guy mu ne xam ne ne mbokk nga xam ne mooy mbokk taalibe mu ne bàyyi na leen ci xel bu yàgg yàgg mu ne yàgg nañ ko ànd itam mu ne kon loolu mooy li ci gën a am solo mu ne dëkkandoo itam yàlla boole na leen mu ne gën na leen a boole mu ne kon ñaar yooyu mu ne yaari cër yooyu mu ne cër yu rëy la mu ne tam ngeen ko ci moom mu mi ngi leen di sant suñu borom di leen sant sëriñ bi sëriñ bi ñu fàggul lépp mu ne mu ngi leen di sant di leen gërëm mu ne xam nañ leen bu baax a baax. mu ne xam na li ci seen yéene ci sëriñ bi. mu ne li ci seen pëstéef. mu ne xam na li ci seen yitte. mu ne loolu lépp xam na ko ci yéen. kon na ngeen xam ne. mu ne noonu ko si borom boolee. mu ne noonee la leen koy jàppalee. noonee la koy sàmmee. jërë ngeen jëf. ñu ngi leen di sant di mu ne xolam set na guy ci jataay bi kon nag jërë ngeen jëf suñu borom gën leen a gàttandu ak tawfeex Sëriñ Tuubaa seen lépp gën di yomb mu ne loolu rek mooy ñaan gi na ñëpp tàll seen loxo ñaan ak seen وجهك ساكن مسياك قدم راس الخلال عالم راس متعدا بسر وجهك ساكن مسياك